salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna Serigne Mara la mu Serigne Saliou baal leen yoon bi dafa bette euh, ma leen di wax ne euh, Sénégal Ousmane Sonko sonn na trop li ñu teg ci moom ëpp na Ousmane Sonko day gaynde mu ngi mel ni mbër ma nga xam ne dañ la ko woon boo arrière daanu mais Ousmane Sonko billaahi wal kitaab yi lii ñu koy teg képp ku ne méttiwul rek xamoo xamoo àq ak yàlleefu doomu aadama lii nag ñi ngi ñaan ci barkeb Seydunaa Muhammad ñaan ci barkeb Serigne Saliou ak mag ñu baax ñi fi nekk Ousmane Sonko lii ñu koy teg yàlla na jeex takk te état bi toog waxtaan Ousmane Sonko lii nga sumb ñi ko mas a sumb ñëpp dañoo daan ñii rey nañ leen ñii ñii dañ leen a boom ñii dañ leen a posone yow nag li nga woote yi ñu suqali réew mi du lu ndaw moo tax natt yu ne dana la dal waaye billaahi képp ku ci ñaaw ëllëg di nga rus nañ leen tam tappe tappe xol yi wàcce température sëñ Fallou jërëjëf waaw vidéo bi dafa dafa dafa daggoon léegi damay wax ne ñun ñoo bokk Sénégal waaw kenn mënu koo réew mi kenn mënu koo xarñaar waaw nañuy nañuy nañuy nañuy nangulante cër yi di nangu suñu boroom li mu def ci nit du Ousmane Sonko du du du kenn ñun xeexuñu ngir kenn dañuy xeex ngir réew mi réew mi nag mënuñu koo defar te takkuwuñ ñun ndawi réew mi ku ci nekk da ngaa war a génn sa ruq wallaahi alxasim ñëpp bëgg lu baax bu ñu gisee lu baax nag daan ko wër ay at suñ borom andil ñu ko gis nga ku mel ni Ousmane Sonko. billaahi wallaahi tàllaahi bis bu ko Sénégal ñàkkee wa rabbul kahbatu musharraf danañ jooy bëccëg gu ndara kàmb te kenn du ci man dara dafa am nit ñoo xam ne boo leen amee da nga leen a war a protéger mais nag Sénégal da ngay am nit ku baax di ko fakkastal àdduna jaru ko. nañ leen ko jàmm Ousmane torop torop torop dafa metti billaahi boo génnee ci ngay xamee ne àdduna bi ñi ngi liggéey ñi ngi développé ñi ngi suqaliku te amuñu dara ñoom ñun ñu am lépp toog fii di xëccoo di wax ay waxtaani kii kii sëya na ma ah kii tëdde na ma ah kii daf maa tuumaal damay setal sama der wax yu wax yu wax yu wax yu doyadi nañu teg débat yi ñu waxtaanee réew mi alal ji fi nekk lu ñu def ba doomi réew mi dundee ko moo ñu ëppal importance yi kii sëy na kii kii violé na kii kii tëdd pourquoi loo xam ne yow boo ko defee rey ay junni jër sa def jëru ko te ku toll ni Pastef sonn lool ay at ci seen mouvement bi ñu xëy xëy xëy na leen benn baatub diffamation moo tax mënoo leen a bokk ci élection yi loolu képp kuy nit ñu gëm loolu ko nga gëm ko rek doo nit ak liñ ci def war tabax réew mi yow nga ñëw toog fii teguñu fi kenn muy buum ak buum bi. koo xam ne lépp loo taxaw di ko wax yow li njëkk liñ lay wax loo da xam nga looy wax doone ne Ousmane Sonko impôts domaine doo ne yow li ngay wax mooy moo fa demoon waaye Sénégal dañ fee aaye massage du délit ñiy def massage suñu état bi ñu moo leen moo leen reconnaître Ousmane Sonko nit la nit la massage du délit sëy ak jigéen joo takkul dafa xaraam mais Sénégal dañ koo légaliser ndax dañ lay jox carte ngay dem taxaw di ñaan sa di jaay sa bopp. ba pare ñu bëgg a taxaw bëgg a bëgg ci ay waxi kasaw kasaw loo xam ne mbiru nit ki moom rek la soxal ñuy teg ay loi yoo xam ne kenn xamut lu muy nuru mais nag président Macky sàll képp kuy wax ak moom na nga jóg nga wax ak moom artu moo gën atte te billaahi wallaahi na ma leen ko waxee woon lii ma gis muy ñëw ci réew mi baaxul ci réew mi billaahi wal quraan dossier yi buñ ko tegul ci suuf billaahi Sénégal mooy réew moo xam ne booy wax say droit sax dañ naan la mais ñi war a wax nañ wax ak président maki Sall ah fii am na ay kilifa senegal képp koo gis rek am na ku mu rus ah ñi war a wax ak ko Sonko Ousmane Sonko jàpp naa ne tey jii buñ na ko woon nañ bàyyi lépp mu jeex bu fekkee bëgg nga réew mi Ousmane ko sax mës ta jël mbir di ko fi samp naan lii nañ ko def par force moom nee na bu dee jàmm dëgg la puisque wax na dëgg Macky Sall na na na wàcce mbir yi àdduna amul solo na xoole ndaw ñi comme Amadou Sall Marème fay sàll yow mi nga xam ne bi nga ñëwee ci réew mi Sénégalais yëpp dañu laa nangul Marème fay sàll Sénégalais yëpp dañ laa apprécier woon bu nu yàq way woowu kii di Macky Sall lépp lu mu am wala lépp lu muy def dara du la ci ump te waxtaan leen réew mi bu ñu yàq suñu réew mi Sénégal jàmm fi xaj ca jàmm rek moo fi am yàlla suñu borom sax dañ koy tooñ muy jéggale te nit ki bàl leen ma damaa ñëwoon léegi fii sama benn wóolëra laa seetsi si woon euh, ma bañ nag balaa may àgg kër ga mu guddi moo tax ma ne ko may ma tuuti rek ma def vidéo bu gàtt dama bëgg a wax que ne Sénégal euh, ngay gis réew moo xam ne nit day wax dëgg nit ñi liñ lay njëkk a wax mooy sawaay moytul dañ lay tëj nga xam ne loolu day nuru day nuru dictature waaw du koy nuuru te loolu baaxul cim réew lan moo tax ndaw ñi bu ñu jógee takku ne dañuy xeex waxuma ne chaque jour ma wax ko xeexuñu ngir sonkoo mais dañuy xeex ngir jàmmi réew mi billaahi wallaahi tallaahi képp ku artuwul di nga àtte na kilifa yu jóg wax ak ñen war a yàgg naa koo wax ay weer ci ginnaaw na leen li ma gis baaxut dama koo wax dama ne leen li ma gis baaxul il faut ñu jóg jéem a defar réew mi te xam ne bu jagee suñum réew la bu jagul suñum réew la ñu war a wax ak président Macky looy bañ mu dal la bul ko teg doomu jàmbur ndaw ñu sonn nañ ñi ngi xeex ñi ngi dee président ku bëgg réew mi dëgg-dëgg même boo yëkkati woon ab dossier Sénégal ñor la nga xam ne dossier bii bu fekkee damay setal sama der bu ma demee ay bakkan daanu ci boo bëggee réew mi waroo def loolu waaw képp ku bëgg réew mi nga yëkkati dossier mu wër na leen ay mor même bu dul mor yàlla suñ borom li mu wax dafa leer dana dana lu ma bind nit a ma ci gënal yow nga bëgg man mën a fitnaal nit kooku te loo xam ne boo ne woon déet du am hmm? te bis dana ñëw mën ngaa réccu li nga doon def dara saxul te lépp a man a ne suñ borom mooy borom fa xaaloo li maa yuriidu yàlla lu ko soob lay def man na lu ne yàlla nag mooy dogal ba noppi ba mu bindee dana wama min dabbatin fil ardi ilaa alallaahi risquhaa moo tax nit ak wërsëgam kenn mënu koo dog li tax yàlla bëgg ñu ab nit taxaw ne dama leen di toroxal loolu warul mën a nekk Sénégal Euh, baal leen ma man damaa nekk nit koo xam ne lépp lu may wax ci Sénégal day damaa bëgg mu doon lu ma gëm mësuma ànd ak benn politique ci àdduna mais dama gis lii loo xam ne suñu mbokk yi nekk ci diaspora bi ak yi nekk fépp ci àdduna dana ñibbisi ci senegal ñu dundandoo xéewal gi fi ne waaye ba tey may fàttali ne gis nga projet bii képp ku ko bëgg a gàllankoor du la fi fekk nañ def très attention wàcce température yi lii di ñëw ci réew mi baaxul ñu gas yëpp suul ko kilifa yi génn wax lan mooy kilifa ku fi ñemee génn di saaga kilifa amut mais kilifa yi nañu ñaan Macky Sall mi bi mu tollee ci ñaan dafa ñaan ñu may ko moom it buñ ko ñaanee na maye loolooy dëkk ñi ngi ñaan ci réew mi jàmm ak sutura ak tawfiix Sénégal lañ bëgg Sénégal lañu am Sénégal lañu bëgg Sénégal lañu am wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jaay dossier yi. lañ war a fin bal leen ma ci wax ji maa ngi jéggalu sama xol dafa neexul dinaa ci ñëw ci beneen waxtaan spécial mais Ousmane sonkoo nañ ko may jàmm nañ ko jàmmal xolu sénégalais yëpp tooy na xolu sénégalais yëpp tooy na nañ ko may jàmm lillaahi wa rasuuli ba ci kanam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf